bismillahi arrahmani irrahim rawal imaamu albuxaari yu imaam buxaari ci saxiixam nettali na nena xaddatanaa yaxya bnu bukayrin yaxya doomi bukayr nettali nañu xaddatanaa laythu layth nettali nañu an uqaylin jëlee ci uqayl an ibni shihaabin jëlee ci ibni shihaab an abi ubaydin mawla abdirahmani bni awfin jëlee ci abu ubayd mbaa yàllay sayiduna abdirahman doomi awf annahu samica aba hurayrata moom abu ubayd dégg na aba hurayrata yàll na ko yàlla gërëm mook sayiduna abdirahman bni awf ak saxaaba yonentu yëpp sallallahu alayhi wa sallam dégg na ko yaquulu muy nettali ne qaala rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na la an yaxtatiba di taxan axadukum kenn ci yéen xuzmatan sa mat wow dana ko yenu ala dahrihi ci gannaawam xayrun lahu moo gën ci moom min an yasala ahadan muy laaj fa yuctiyahu mu di ko jox aw yamnaahu wala mu di ko ter tere kenn ci yéen dem ca àll ba dajale mat bam bari mu yenu ko ci gannaawam jaay ko ngir am lu mu dunde moo gën te moo gën a diiñ muy tàllal loxoom di ñaan nit ñi moo xam may nañ ko moo xam dañ koo gàntu ndax jullit dafay diiñ te laaj dafa toroxal dafa wàcce dignité dafa tuutal dafa suufeel su meccee daal la bëgg la yonentu bëgg a wax ne warta am kenn warta wax ne man ni ma toll mënuma def nangam kenn tolluwul nenn xanaa nu nit di toll nekk yonant sallallahu alayhi wa sallam moo gën a rëy ci ni nit di toll te daawuda yonantu la woon dafa daa jàpp weñ yile di ci defer la mu ca mën wa alanna lahu alxadida an imal sabiqat yonantu sallallahu dafa daa liggéey dafa daa liggéey saxaabaam yépp dañ daan liggéey alayhi salaatu wassalaam kon na xeetu yonent ku nekk ci ñun na xam ne liggéey moo ko war ak daraja jum foog ne am na ko ak askan wum foog ne rëy na tam bokk ca hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim salaatan yughnina biha salaatan yughnina biha an eh, biha bi xalaalihi an xaraamihi wa bi fadlihi an man siwaahu xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziimi amiin